am nañu déglu uh-huh, ba fi ñu toll nii nañu déglu Cheikh Tidiane Dièye moom itamit candidat la daal dinay voté ba noppi ñu jàmm réaction am léegi nii. ok. voilà président votre réaction après avoir rempli votre action. oui euh, simplement euh, rendre grâce à Dieu. Allah subhanahu wa de nous avoir donné l'occasion de vivre ce jour euh, historique, pour moi-même, mais historique aussi pour le peuple sénégalais. C'est un jour important dans nos vies. Euh, je voudrais le remercier du fond du cœur. Je suis revenu ici dans mon école d'enfance, dans mon quartier d'enfance, l'école lieutenant Aline Badara Diallo, en face du camp militaire de Ziguinchor, où j'ai fait mes humanités, l'école qui m'a formé et forgé. si j'en arrive à être candidat à une présidentielle dans mon pays, c'est grâce à cette école et à tous ceux et celles euh, qui ont partagé ma vie dans ce quartier. Je voudrais les, les remercier et les féliciter. Je voudrais remercier et féliciter le peuple sénégalais qui nous a permis aussi de vivre ce jour. En dehors d'Allah, c'est grâce à la détermination du peuple sénégalais à sa volonté, à son courage, à sa résilience que nous avons aujourd'hui l'occasion de voter. Ce n'était pas évident. Tout a été fait ces dernières années pour que ce moment n'ait pas lieu. Tout a été fait pour que nous n'ayons pas la possibilité d'être des candidats et de voter pour le projet auquel nous croyons. Le peuple a montré qu'il est le seul souverain. J'entends souvent des gens dire force restera à la loi. Et je leur dis souvent, ajouter force restera au peuple, parce que le peuple est le seul souverain. Et le peuple a montré qu'effectivement, il a eu la volonté, il a eu l'envie et la détermination de préserver sa démocratie, préserver son état. Ce n'est pas seulement un jour d'élection au plan politique. C'est un jour de mutation sociétale. Le peuple sénégalais a décidé que notre société va changer. Demain, ce sera un nouveau Sénégal qui naîtra, Inch'Allah. Un Sénégal de paix et de justice, un Sénégal de prospérité, un Sénégal de fraternité, un Sénégal de cohésion. Notre peuple a été divisé ces dernières années. Nous avons vécu des traumatismes, beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisses. Nous avons perdu beaucoup des nôtres qui ont laissé la vie. Beaucoup ont été mutilés à vie. ont perdu des membres. Beaucoup ont perdu leur travail. Des familles ont été disloquées. Cette division a été douloureusement vécue par le peuple sénégalais. Des milliers de jeunes ont été emprisonnés. Beaucoup ont quitté le pays pour aller à l'exil. Cela doit cesser et cela cessera, Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu, avec la volonté du peuple sénégalais qui se prononce aujourd'hui, très bien comme ni ngeen ko déggee léegi daal di koy gis Cheikh Tidiane Dieye moom itamit bokk ci candidat yi euh, voté na ba noppi il a tenu aussi euh, des propos encore une fois très responsable bu fekkee mi ngi ci ligne bi Babacar Niang ñu jël ko Babacar Niang ak sénégalais ci Babacar ñu ngi lay dégg. voilà merci Yacine euh, di nuyu ñëpp ñi nga xam ne Euh, voilà ñu ngi door vote bi depuis ce matin dans les donc euh, li nga xam ne ci biir commune bi déjà am wax ni nag euh, foofu am na lu tolloog lii di deux cent vingt cinq bureaux de vote ou trois centres de vote voilà jamono ji sax ma Déthié Fall le candidat à la coalition Déthié 2024 moom nag mi ngi nii jamono ji di voté fii au niveau de l'école école boo xam ne nag bi fi ñëwee ce matin comme ni ñu jaaree ci yeneen centres yi gis nañu nit ñi génn nañu tôt le matin vraiment ñëw ci niveau locaux yi nga xam ni fa la ñu war a voté taxaw nag ci buntu bi mais amul ambiance bu nit bi eh, ci yenn école yi bu mel na say say fii sax vraiment c' est le calme eh, vraiment y' de suspect pour le moment amul aussi benn euh, revendication bu ñu noté jàpp ne rek nit ñi génn nañu calmement ñu ngi ñëw mais ci kanam lay gën am rëcc bi di wax ni école daaru fële ca soor foofu tamit jaar nañ fa ba fa jaaree vraiment euh, gis na ni nit ñi ñëw nañu solo ba jëpp macha taxaw di saafante ku nekk dem sa bureau de vote euh, foofu dugg ñu ci saali aussi yi xool ñi nga xam ne mooy dispositif bi nga xam ne ñoo yore lépp lu jëm euh, ci surveillance bi foofu ñoom fësal nañ ni amaguñ benn xaar ma yàlla boo xam ni nag euh, noté nañ ko di wax nii fii dëcc jamono ji muy wax euh, dugg na ba voté bureau 3 la voté centre bi nga xam ne moom la nekk nag euh, mooy centre bi nga xam ne rek moom moo nekk fii ci sayet fii six bureau de vote ñoo fi nekk moom bureau 3 la voté bi mu génnee aussi ci jot li mu jot a wax woote na si jàmm rek wax ni daal seen xel dal na te ñoom am nañu yaakaar ni daal fii ci ndar daañ ko jàppale parce que moom rek mooy candidat bi nga xam ni moo nekk fii ci ndar nekk dëkk boo xam ni nag dafa soxla hmm. lu bëri fi war a changer sur le plan euh, donc économique di wax agriculture bi pêche bi tourisme bi ak lépp loo xam ne rek nit ñi def ko soxlo donc laaj na ñu nekk beneen changement boo xam ne daal tey jii doomu ndar yi ñu ngi koy yaakaar à travers ce vote la bi nga xam ne mi ngi déroulé fii si Saint-Louis voilà di wax nag euh, Saint-Louis mhm. euh, am na cent vingt cinq mille six cent cinquante six ci biir commune bi deux cent vingt uh-huh. de vote uh-huh. ak trois centres xam naa daañu doxantu ci yeneen kii yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ci kanam mën leen continuer di leen jox li fi xew ci jàlle oui foofu ca euh, Ndar di ñu xamal ni Déthié Fall moom daal di nay euh, def votam ba pare euh, moom mi nga xamante ni moom rek mooy candidat foofu ca Ndar et actuellement comme vous le savez Fabrice Nguema on nous fait part de quelques altercations on peut dire entre les leaders de Benno Yakar et de Pastef peut-être ak on va on saura tout à l'heure avec un de nos reporters mi nga xam ne mi ngi sur place foofu mu di Fatou Khalifa mbay bu fekkee mën nañ ko am ci ligne ah, Mermoz. sama ji ce serait bien. wala uh-huh. certainement dinañ ko am mais euh, ah. Serigne Mboup moom itamit comme ni ma leen ko waxee sànq voté na ba noppi euh, dañuy daal di déglu déclaration wam te yàlla bu fi benn incident am euh, féliciter encore l'organisation ma fekk ci biir ak président bureau de vote bi ak ñëpp vraiment gis naa ne Sénégal démocratie dëgër na Euh, ci administration et que incha allah loolu dana continuer. président am nga ndaw yi la nekkal fu ne. waaw euh, li ma amagun ci information gisaguma benn insidant majeur mais je pense que yéen presse bi yéen ay gën a informé wu gisaguma ko mais li ma ci mën a yokk rek mooy euh, sama candidature dafa nekk candidat boo xam ne nii yàgg nañ ko wax et c'est la première fois mu am. muy candidat boo xam ne nii wotewul Dakar candidat la boo xam ne nii ci daar ji la jógee candidat boo xam ne nii liggéeykat la te jaar na ci expérimenté wu ci ba noppi bi ma waree Sénégal tamit je pense que daje naa ak sénégalais yi gis naa ne euh, sénégalais yu préoccupé lañ ci ci élection yi ak ci jàmm te waaye nag gis nañ ne bëgg nañ ku yàlla def nga jël ko te yàlla na nekk man ah nga euh, jublu ci xëyu ndaw yi ak tamit dimbale njàng mi njàng ñaar njàng yëpp parce que ñu bari dañoo jàpp rek ne njàngu daara yee sonn mais njàngu école yi tamit sonn nañ abri provisoire yi bari na dimbale nit ñi tamit ñu mën a am dara lu ñu def seen poos ndax coow li coow ci réew mi euh, am loo def sa poos euh, te wax dëgg yàlla mooy indi jàmm ci dëkk ndax yàlla sax ci ilaa fi xore si loolu la wax pour jàmm am lépp am il faut mu am sécurité alimentaire ak sécurité publique te yaakaar naa candidat yëpp gis nañ ko ndax candidat yi euh, euh, yaakaar naa ne mbooloo mi leen toppoon di daw seen gannaaw ci heure liggéey dañ ci war a jàngat ne nit ñi amuñ liggéey amuñ préoccupation e loolu man loolu laa jàngat ci sama sama kii ci sama tournée li ki des nag mooy xam li lay xaar e je pense que ku ko gagné tamit boo paree nga dox jàmm réconcilier sénégalais yi ñu dem liggéey te wàññi politique tamit bokk ci euh, candidat élection présidentielle di promettre même d'ailleurs qu'il va fixer le prix de l'arachide à Saint ànd ceeg euh, Mamadou Fofana actuellement mi nga xamante ni mi ngi xamal ni euh, kooku di Malick Gakou moom i tamit mi ngi voté wala voté na sax ba noppi mais laata loolu dañuy déglu Khadija. oui on est ensemble hein, comme tu l'as si bien dit je avec bien Khadija Karim oui. voilà donc ñu ngi fi école 16 xaaral ma jox leen mu defal leen état des lieux. si le candidat Malick Gakou d'accord. aywa. Allez, Khadija. waaw xat yi ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi fii ci ECHO 16 fii nag vote euh, baa ngi démarré depuis huit heures waaye li ñu ci saytu nag mooy le vote se passe bien ici il y a une forte affluence depuis ce matin le troisième âge est pris d'assaut depuis la première heure où devra voter le candidat de la coalition Gakou 2024 li ñu ci gën a tamit mooy il y a une bonne ambiance pratiquement pas de désordre bu ñu ñëwee ci état des lieux bi nombre d'inscrits bi mi ngi toll ci cinq cent quatre-vingt-deux bureaux mi ngi toll bureau de vote yi mi ngi toll si treize bureaux troisième bi nag ba tey ñuy wax ak yéen gu guñu actuellement ñu ngi xaar l'arrivée du candidat Gakou bureau numéro douze la Gakou yi war a voté moom li leen mën a wax rek mooy y'a beaucoup de monde nit yaa ngi ñëw di voté si ñuy xaarandiku tuuti laata le candidat Malick Gakou di génn si bureau de vote bi merci beaucoup Khadija Karim waaw Mamadou Fofana. oui euh, donc euh, ce qu'il faudra retenir globalement en attendant peut-être ñu mën a am Malick Gakou parce que dafa ñëw bëggul woon brûler les étapes nee na day def la queue. bon certainement en attendant de prendre un bain oui. de foule. Oui. et puis voilà on dira que il est de peu tout de blanc vêtu moom Malick Gakou donc sol mbaxane koppati euh, bu ñuul on dira qu'il est serein. les militants on suppose euh, de euh, Gakou 2024 accompagné bien sûr euh, de Ahmed Aïdara. Dia mi nga xam te ne nii moom mooy directeur de campagne am école 16 je dois vous rappeler que école euh, centre la boo xam te ne nii on dira centre pilote la avec treize bureaux de vote euh, donc naturellement Mali Gakou fii la mës di voter donc tey jii nii tamit mu ñëw en tant que candidat à cette présidentielle euh, pour accomplir donc son devoir de citoyen donc pour le moment loolu na mën a jàpp gum il faut retenir également que école bon oui le centre école 16 ci boppam mi ngi fees dell nit pour dire nañ fi noté depuis som de la matinée donc euh, euh, les citoyens ont pris d'assaut euh, école bi nga xam te ne ni day école bu ñu ràññetle la Géejawaay bokk na ci ndax ki nga xam ne moom mooy mbër bi di Balla Gaye 2 tamit fii lay entraîné donc loolu yëpp tax na màggaay école bi ñu gën ko ci ràññee ak ki nga xam ne tamit candidat di Malick Gakou naturellement di fi voté xam naa dañ leen di bàyyi ngeen dem xool yeneen gox yi puisque Malick veut faire la queue bu tu paree après ñu mën ko am en direct se premiers présidentielle bi Yacine mu nekkoon euh, Khadija Karim ak Mamadou Fofana fii ci école 16 pour Zik FM Sen TV